Salam Man euh, Moi, je, suis né ici. Je suis, sénégalais. Euh, et mes, parents sont, libanais. Et j'ai fait, fait mes études ici. J'ai grandi ici. j'ai fait, l'école primaire et l'école secondaire. Et après, je, je, fais mes propres, mes propres business. Et j'aime le Sénégal. Et dans la chanson, ça fait même aimer à savoir aux Sénégalais que moi, je, ne, suis pas, je, ne suis pas raciste. Donc, euh, Amoul euh, Solo, ça fait presque des années, environ 15 ans, 10 ans, je ne suis plus allé à l'extérieur, dire au, Liban, parce que je n'ai pas le temps. Je suis bien ici au, Sénégal et je suis très content, très, très heureux. C'est pour ça que je n'ai pas le temps et, en même temps je travaille, je fais mes propres business. Je suis marié avec une Sénégalaise, surtout c'est une serrère Chaffen elle est de, de, Et je suis bien heureux avec, avec, elle. Et tout va bien. Et on a deux, deux enfants. Et nous, déjà, j'ai une, elle, a, 6 ans et l'autre, elle a 4 ans. Euh, Mohamed, euh, me pose la question, je me savoir. non seulement les Libanais, nous sommes waye ñun tamit euh, sénégalais xam nga ñun fi ku fi ñëw moy lewum teranga ku ñëw dañ lay accueillir ñu teral la légui ñom tamit ñëw nañu dëkk ak ñun dëkkin bu rafet man mi di wax ak yow par exemple sama jëkkër euh, libané la euh, moy la famille Safieddine xam nga mais wax dëgg ci yalla dëkk na ak ñoom awma ak ñom ben problème alhamdoulillah nak dans ce côté euh mohammed gis nga euh fi mun nañ ci réussir jom rek mooy tax nit réussir ndax nit jóge na fi nga dem ba Europe nga am fa lu ne mais boo amulee fu ak fayda la nga yor day nax saay fii mun nga fi nekk ngay am sa téeméeri dërëm chaque jour nga am sa téeméeri dërëm mais boo nekkee nit ku am jom téeméer boobu nga koy dajale la kee am mun nga ko am ndax nit étranger yi di ñëw par exemple libanais ñu ngi ñëw fi liggéey si ci ñun pourquoi pas ñun sénégal sénégalais ñu fi toog ñun tamit ñu liggéey ñoom li ñuy def ba ñu am fu ñun buñ ko defee ñun tam danañu am mais tamit tukki bi nit nekkul ne damay wax ne bu kenn tukki nit mun na tukki nga wuti mais am na tukki yoo xamante ni tam boo ko defee euh, pour sonal sa bopp la parce que en Europe maintenant dafa saturé saturé na tellement que européennes yi sax ci seen bopp ñu ngi ñëw fii en Afrique pour ñu ut ci lu ñuy jàppandu donc ñun Sénégal fii bu ñu fi toogee ñun tam ñu jàppandu ñu liggéey suñu réew dina ñun am ñun ñi fi ñoo ba am fi Pula foudé da nga xol par exemple dañu joggé guiné ñu ñëw fi Dakar liggé fi ba am fi dara wat dëkk bi gaa metti na mais lu rek góorgóorlu ndax euh, dara yombul fépp fo dem tam fay metti ah Sénégal fa neex dé man bobu lool duma ko nangu gis nga fi Sénégal ak fu munti nekk nak. Sénégal fa neex euh, te dina ko waxat sax ci sérère e jëm fatou sa Sénégal ndi wade pays de la teranga sénégal wonne ɓe isi nafu pulohɗa nak fo sénégal la ñeppi ni sénégal donc nag loolu boo ko amee ba surtout sa dëkk ñu ko pays de la Teranga kon nag Sénégal dara dàqu ko li baax na du fenn fenn naqariwu ndax ki fa dëkk rek neex na mais man fi ma dëkk xam naa ne moom fii mooy pays de la Teranga euh, Liban demaguma fa nag demaguma fa parce que sama belle famille yëpp ñi ngi fii xam nga sama goro yi ñi ngi fii ñëpp ñi ngi fii Euh, loolu moo tax nag euh, demaguma euh, à l'occasion maa ngi waale sama goro bi Ahmed Safidine ak nax la Rose ak Salwa Safidine mi nga xam ne mooy kii nekk Elfu Modor moom mi nga xam ne bu nam bu nammee salsa day dem ba Kiba indi ay salsero dugal leen avion ñëw ba Sénégal feccal ko salsa mu delluwaat leen Kiba kooku mooy Salwa Safidine te Elfu Modor maa ngi nuyu la Rose di sama goro ma nuyu Nizar Safedine di sama jëkkër di nuyu sama goro Ahmed Safedine ndax tamit euh, loo gis nit ki bul wax ne mën naa ña da jàpp ñoo tax parce que bu ma nekkoon ak ñoom ñu xatal ma du ma sañ fii télé tey ba may wax diggante libanais yi ak sénégalais yi ndax ñoom nekk naa ak ñoom aw ma problème ak ñoom dëkk nañ si jàmm téye nañ ma man na wax dëgg si yàlla maa ngi sant yàlla côté boobu nag bu baax a baax li ba ma fi xam dal ñi ma ci yalla bolé ak ñom mom alhamdulilah. wa ma ngi ci kawam nak ma ngi togg ma ngi togg kousa ma ngi togg luxuyé di tamaate ci ciébu jën bi. à ça je suis très très très, très heureux avec euh, avec euh, avec avec ma, avec ma femme. Euh, RDV ma leen di nuyu. ndax non seulement benn baas maa ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla xaare jannatul firdawsi ndax euh, benn baas nekk na nit koo xamante ne ku ko xam ci àddina ku ko déggul ku ko xamul itam dégg nga turam ndax diine moo ko soxaloon ak dimbali euh, néew gi doole yi ak defal yoonu lislaam ak dimbali nit ñi yàlla def nag xam nga euh, télévision dafa baax

te nag maa maa ngi maa ngi koy ñaanal ci turu waa Yéba yëpp ndax waa Yéba yëpp wax dëgg si yàlla ñu ngi ñu ngi sant benn baas ñu ngi koy ñaanal fa mu tëdd yal na suuf oyof ci kawam euh, seen jàkka ba tam def na ci loxoom moo tax maa ngi ñaan euh, RDV ca kaw ca kanam émission bi nag képp ku ko dégg man faatu Safidine artiste la fii ci senegal maa ngi daan sama doole maa ngi daan maa ngi door waa artiste nag nekkul ne doo liggéey man fii laa yendu Sandaga ak ambilay man sama butik layor, yor damay xey nak di dóor war tek dil jappal njaax ba ngor nak ndax ma am luma ma ci keur ga yeen tam bu ngeen toge nak ngeen di dóor war euh, tek dil jàppa njaax nak bu yagge du ngeen dem Europe di ngeen am lu ngeen fi doore war donc nak nañ tok fi liggey suñu dekk ñu am lu nit ñi di out si fi ñun ñu am ko fi ñu investir ko fi suñu senegal mun dem ci kanam merci Muhammad.